wa taqdi lana biha jamia alxawaij wa takuna lana biha waliyan fi dunia wal axira anta waliyuna fa nicma almawla wa nicma alnasir أيها المشاهدون الكرام في داخل السنغال وفي خارج الوطن نرحب بكم كالعادة في كل يوم الجمعة ونقول لكم مرحبا أهلا وسهلا بكم haa nahnu alyawma fi intidaarikum bi diqqatin wa sururin wa baad naqulu lakum salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di ziara di leen ñaanal yàlla jàmm ak sutura di ziara kilifa aada yi ak kilifa diine yi di leen ñaanal yàlla jàmm di ñaan sunu Sénégal yàlla fi yàlla def jàmm yàlla na yàlla toppi xol ñu ànd nekk benn jàppalante dimbalante yërëmante li karim ñi ziare it ñi nekk bitim réew di daan seen i doole bëgg lu ñu indil seen i njaboot yal na leen ko yàlla yombalal mbokk yi ñi ngi ànd ak yéen kalaada fii ko léemu juma ubbi téléphone yi ànd ak yéen comme niñ ko daan defee saa ne euh, defe naa am na ku nekk ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum wa rahmatullah maaleykum waaw soxna si ñu ngi lay ziar. Hmm. bu baax. alhamdulilah bisimilah. di la nuyu. ñu ngi lay fay. Uh, dama doon laaj. Mm-hmm. Uh, gént bi bokk ak nit yàpp. di ko mm-hmm. lekk. Mm-hmm. waa te kooku am na lu mu mën ngeen a yaakaar ci moom sëy ak moom. nga gént nag ngeen di lekk yàpp ci guddi nga teg yàpp ngeen di ko lekk ma doon laaj ba xam. waaw. yéen ñaar ngeen di lekk yàpp. Mm-hmm. dinañ ci ñëw léegi incha allah. waaw kay jërëjëf. shukran. wa ma zilna xata al an fi intidaarikum xaysuma ittasaltum bina bi haadayni raxmayni xaalan incha allah 88 628 04 05 wala 88 628 65 65 salaamaaleykum wa rahmatullah allo allo. allo. waaw bisimilah. waaw allo allo allo waaw xam naa dina ñëwaat ci kanam tuuti ñu ngi leen di xaar ci 88 628 04 05 wala 88 628 65 65 ñu jël ko ci ligne bi te ñëw salaamaaleykum. allo. allo oui. waaw soxna si. waaw sëñ bi ñu ngi ziar. yàlla yàlla nangu ziara bismillah. waaw dama bëggoon daal ñu jàppale ma tuuti si dama gént. si hmm. gént bi ma gént. bismillah. waaw bi ma tëddee dama gént démb. Hmm. mu mel ne dama nekk ci benn dëkk boo xam ne dafa am guerre. Hmm. waaw guerre bi comme ñuy bombarder daal dëkk bi comme. di sànni mhm. bomb bu dëkk bi di tàkk fi ma mhm. nekk di tàkk may daw ànd ak sama doom bu ndaw bi di daw muy tàkk léegi mu am yeneen xale yu ma toppaat ma jàpp seen loxo ma ne leen léegi jàppoo leen ñoom ñëpp ma jàpp seen loxo ñu jàppoo ñuy daw mu am benn xale boo xam ne euh, dafa gumba mais bët yi mooy gumba yi nga xam ne seen bët dafay xool aussi mhm. ñu ànd ma bokk ñun ñëpp daal ñu ànd di daw mais fu ñu dugg ñu mu mel ne dañuy dàq fu ñu dugg di làkkatu rek bomb tàq fa mu tàkk ñu dawaat làqatu may laaj loolu lan la daal. Mhm. waaw. dinañ ci ñëw léegi incha allah 88 628 04 05 wala 88 628 65 65 wala 00 221 33 841 22 99 salaamaaleykum allo. waaw allo allo allo doo yëkkati baat bi tuuti ñuy déggal. allo waaw bisimilah allo. salaamaaleykum. waaw da nga yëkkati baat bi ci kaw ñi déggante bu baax. salaamaaleykum. waaleykum salaam waaw moom ngay waxal ni. waa bismillah waa da yëkkate kàddu gi bu baax ñu déggante. dama ne. Hmm. ah dafa dama gënt bi dem ci benn marché. Hmm. ma dem di di jën foofu ay saamu yàpp. Hmm. léegi nag ki ma ma toog fale ne ko laxasal ma ma ba pare def ko ci kayit dem jox ma. ma ubbi ko gis ci ay ay ay daggu géej ak i kecca maanaam mm-hmm. ni kii diw mii daal yow yaa tiriyaare gis nga li ma jaxasel nga gis ci ay géej yi waaw ay yàpp la ma jaay ba pare def ci ay géej yi mm-hmm. waaw beneen bi mm-hmm. damaa gëntoon be dem suñu dëkk benn boo xam ne nee na jaay ay mango mango mango waaw ay mango la def forêt bi ba mu fees mm-hmm. léegi ma dem ci nag dem di di bëgg a jënd mm-hmm. oto bi départ di daw oto bi départ waaw oto bi départ di daw man ma topp bi ma ñëwee allo waaw ma demee nag ne ko fekk fa jigéen ñu toog ma ne man ma bëggoon jënd mango ay borom oto bii de du nangoo jaay kenn jaayu ñu de léegi oto bi di dem ak mango ji su mm-hmm. mu mën a laajte loolu mm-hmm. beneen bi ma mm-hmm. demoon ci sama benn kër mag te dëkk ba ba léegi de léegi mu jël saxam def ci dugub ba mu fees léegi ma ànd sama doom ci góor bi kaay ñu tëb ci dugub ji ma boj balaa fa ne jaay nii Mm-hmm. ah yaay nooy jote lii ma ne yéegal rek xam nga sàq yooyu ma dem ubbi sàq bi rek mm-hmm. yaa ngi dégg waaw léegi ma yéeg rek mu ne rek sàq ba daal ci mm-hmm. tasaaro yaa ngi dégg waaw sàq sàq bi daanu sàq mi daanu tuuru waaw di tasaaro ma ne ay sama mhm. mag la ma ne ay diw bu ñëwee dina ma rey de. Mhm. may may jéem dajale dugub ji waaye xam nga ne sax bu daanu tasaaro. Mhm. tasaaro. loolu daal laa bëggoon ku ma ci ñëw léegi incha allah. سنأتي ببيان ذلك حالا إن شاء الله وما زلنا في انتظاركم كالعادة بدقة وسرور إذا اتصلتم بنا 88 628 04 05 ولا 88 628 65 65 السلام عليكم ألو ألو waaw sëñ bi ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay ziar wér. alhamdulilah. ñu ngi lay ziar nag tey. sant sant yàlla. waaw yàlla mu deful dara. alhamdulilah. alhamdulilah. bisimilah dama am gént gi ma bëgg nga firé mhm. bu tedd bi si nga mooy sëñ Sidi Moxtaar. Mhm. gént. Mhm. waaw gént ko daal mu romb ma ni après ma ne kii de sëñ bi la. ma daal di ma daa koy topp. après dem daa koy mu daal di taw daa koy nuyu. daal taalal loxo yi damay ñaanal. Mm-hmm. taalal mu damay ñaanal. laa yeewoo daal. baax daal gént naa tamit. Mm-hmm. di jox benn oto daal. Mm-hmm. nee na oto bi dafa dafa xaw a ñànk rek noonu ko weesul daal. yooyu daal maa koy defaraat ba mu baax daal. waaw ñaari daal laa amoon lu may bëgg ñu xoolal ko baax. Mm-hmm. incha allah loolu la rek. dinañ ci ñëw léegi incha allah. Eh, shukran nahnu nashkurukum gayatu shukr salaamaaleykum wa rahmatullah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëriñ bi ñu ngi ziar. yàlla yàlla nangu ziar. man dafa am lu ma doon wax. Hmm? Mm-hmm. mel na cuuj génn si ma daal ni kii yóbbul yóbbul yóbbul mm-hmm. beneen yoon bi comme biig dama gént tëdd ak sama boroom kër mu simmeeku mais yaram yëpp dafa def ay picc après noonu man nee ko yow xanaa da nga waga léegi loolu laa doon laajte léegi sa boroom kër mu génnee ay picc yaramam waaw mm-hmm. noonu sax man nee naa yow xanaa da waga mm-hmm. après mu daal ni ma xaw ma man dafa ni lu nekk ngay wax mais moom tegu si woon lu am importance daal mm-hmm. waaw baax na dinañ ci ñëw léegi voilà jërëjëf jërëjëf incha allah shukran wa xaal naxnu fi intidaarikum xaalan incha allah 88 628 04 05 ñu jël ci ligne bi salaamaaleykum allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa bi ma ngeen def. ñu ngi fi sant yàlla alhamdulilah alhamdulilah. alhamdulilah. Euh, euh, maa ngi ci émission Firi Guent. waaw. waaw damaa bëgg amoon laaj. Mm-hmm. mën naa ko laaj. bisimilah. bisimilah waaw dama am sama benn euh, mag. bu mm-hmm. nekk bitim réew. daf mhm. maa woo ne ma dafa bëgg a laaj dafa gént euh, yaayam. Mhm. dafa wàcc liggéey euh, ay at ci ginnaaw. nee dafa mhm. gént nag fekk ko ci ab dëkk boo xam ne ab village la bu ndaw. fekk ko ci moom daanaka wéet na fa lool waaye dafa sedd lool. lool lool lool. mu ne ko fii daal ab sedd ab sedd ma jaaxal. dama bëgg nga wutal ma mbàjj. waaw mu ne ko mbàjj daal la bëgg ndax fii dafa sedd. nee na hmm. ci ci ci suba gi am benn doomam bu ko ne damaa génn sama maam ñëw jox ma ñetti caabi ne ma naa la jox ba benn bi ñaari ma téye ko. Hmm. mu xam nag loolu lu mu wund. Hmm. waaw. jox ko ñaari caabi. mu jox ko waaw jox doom ji ñaari caabi ne ko benn bi joxal ma ko sa papa bi ci des ñaari ci des nga téye ko. mu loolu moom dafa gént. gis yaayam ci benn dëkk bu ndaw mu toog fa waaye daal ab sedd nee moo ko sonal lool ne ko wutal ma am mbàjj bu mm-hmm. bëggoon a xam nag loolu lu lu mu lu mu tekki mm-hmm. waaw na dinañ ci ñëw léegi incha allah shukran wa shukran kal aada wa sanaati incha allahu xaalan eh, bi haulai haulaai al ahlaam ci ligne bi te ñëw salaamaaleykum wa rahmatullah allo waaw bi xam naa moo bëri xat-xat rek waaye dinañ àndaat ak ñun incha allah nahnu fi intidaarikum kala dañu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum waaleykum salaam bismillah waa sëñ bi man de dama gént mhm. euh, ab mbooloo bu léegi nag ñaari xale yu góor topp ma nag ci biir mbooloo bi ma sànni ay xeer. Hmm. waaw man nag daal di dugg ci oto bi oto bi daw su ma wàccee ci oto bi rek ci laa yëngu. ñaari xale góor di la topp. waaw ma topp di ma ay xeer mbooloo bi nag topp ay xale yëpp topp ma di topp ci oto dugg ci oto bi. waaw dugg oto bi oto bi daal di départ dem. Hmm, hmm. waaw benn bi maa ngi gént sama wéyjur bu góor. Hmm? waaw ñu jàpp ko kaso bi ma mujjee gént. Hmm. waaw sama wéyjur bu góor laa gént ñu jàpp ko daal. ci kaso waajur. waaw bu góor hmm. waaw. moom laa gént ñu jàpp ko ci kaso bi. waaw boobu daal laa mujjee gént. waaw ma doon laaj lan la woon. baax dinañ ci ñëw léegi incha allah. incha allah. shukran danañ ci ñëw ci laaj boobu léegi xata al an nahnu fi intizaarikum kal aada xaysuma ittasaltum bina inchaa allah 88 628 04 05 waaw dina àndaat ak ñun ci kanam tuuti nashkurukum gaayata shukri li xusni mutabaatikum maana ñu jël ki ci ligne bi te ñëw salaamaaleykum wa rahmatullah allo waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw ah, jërëjëf na ngeen dafa coow. sant yàlla alhamdulilah. man de dama doon laaj dama doon. Eh, eh, mm-hmm. allo. waaw ligne bi xat rek waaye dina àndaata ñun ci kanam tuuti eh, su ma ne dugg indiwaatal ñu loolu muy bëgg laaj ndax li kulli xolmin mabdaun wa intihaa Euh, ñu ngi leen di bàyyi xel ci liñ bi mbokk yi ñëw euh, ci bataaxal yi nga xam ne ak fekk nañ ko fi seeni boroom di ko laaj euh, bëgg ñu indi ci ay leeral bi ci jëkk mbokk bi dafay laaj nee na dafa gént gént gu ko jaaxal nee dafa gént ki ku góor koo xam ne kii da koy bëgg ñu toog ñoom ñaar di lekk yàpp Euh, ñu bokk yàpp wi ñoom ñaar di ko lekk aklu laxmi fi lxulmi qulna dalika miraran allaxmu maradun xatirun fi jismi l insan sawaan inda alrajuli wa kadalika inda almarati kilahuma ala xaddi sawaai fi lxulmi allaxmu maradun xatir waxoon nañ ko wéri di yaram la moom yàpp di ko lekk wéri di yaram la baaxul sawaan moo xam ku góor ki moo xam ku jigéen ki ñoom ñaan ñëpp bu fekkente ne ñoom ñoo koy lekk kenn ku nekk dina am mettitu yaram bu mu yëg ci boppam sawaan bu teew la wala bu teewagul bu ñëw ak segul wa ala kulli xaal ak lu ma a am nañ bàyyi xel ni daal yàpp guddi moom wéri di yaram la waaye sopp nañu mu génnee mboq ak dugub mu saraxe ko iqraajul xamxi wa durrati ka sadaqa fiha xayr génne sarax mboq ak dugub am na ci solo lool ñu bàyyi ci xel Euh, ñu ñëw ci beneen laaj bi mbokk mi neen dafa gént euh, moom it mu nekk ci benn bërëb boo xam ne bi wala boog dëkk boo xam ne dafa am ger guerre bu matti safara si di tàkk ci boor bu ne mu gént ànd ak xale boo xam ne bi mu ngi koy topp te xale bi bët yi neexul gumba la nee na euh, muy seet fu mu làqatoo waaye ba léegi amul fu mu làqatoo ndax safara su bari ak tàkk-tàkk yu bari alxarbu alxarbu amrun axar fi lxulmi sanaati bihi incha allah gis nga geeru guddi tekkul tekkiwul geer la yow mi ko gént da ngay dégg xabaar bu ñëw teeg segul sa tasma xabaran yaati fi lmustaqbali allahu aalam yumkin an yakuna xabaran tayib kama yumkin an laa yakuna xabaran tayib mën na neex moom xibaar bi comme mën na naqari waaye di nga dégg xabaar bu ñëw amaa nag ku bëtam neexul ci gént gënul beneen bi ngay wut foo làqatu te amoo ko ba ci xat-xat yi la bokk nañ ci bàyyi xel waaye li kulli wala kulli xaal ak lu mën am na bàyyi xel ni xabaar a ngi ñëw boo xam ne bii bu ñëwee dina ci jot allahu alam bu neex la wala bu naqari la dañ koy bàyyi ci loxo rabbu samawaati wal ard wa huwa alfaalu lima yurid yàlla mooy lijjanti mbir moomu nañ ci bàyyi xel euh, beneen bi ci topp mbokk mi ne dafa gént dem ci marché bi jënd yàpp nee na ki ko jaay yàpp bi daal da ko mel ni daf ko nax parce que da ci da cee boole ay keccax ak yu mel noonu ak jën yu wow boole ko ci biir njaay mi mu ko jaay mu naqarlu ko lool awalan ko lyaabisi fi lxulmi maa fihi xayra wallaxmu nukarriruhu qulna zalika xaalan maradun xatir fi jismi l insan wax nañ ko léegi yàpp gu di wér di yaram la amaa nag jën bu wow lu mel ni keccax wala géej gi wala yu mel noonu euh, da ngay sumb ay mbir yoo xam ne balaa sotti day yéex wala nga yaakaar te balaa sotti day bari jafe-jafe mooy loolu mu tudd léegi nee na gis na it kuy jaay mango mu bëgg ci jënd waaye kooku mujj ko jaay dafa yóbbu marchandise mi nee mu dugg ci otoom dem nit soo buggee def dara yàlla antu la ko gënul beneen bi boo duggee ci oto oto bi départ ak yow a sayaaratu imraatun fil xulmi wa zalika yadullu ala suui tafahum bayna imraatin wa imraatin fil xulmi jigéen bu duggee ci oto day tegtale ne day am ñàkk déggoo digganteem ak moromam jigéen nañ ci bàyyi xel muy lu jar a bàyyi xel waaye dañ koy digal nag mu génnee ndabu laax bu ko mënee doonte benn la sax euh, am na ci solo beneen bi ci mbokk bi ci tegu mbokk mi mbokk mi ne dafa génte ci kër frère mu gént dem fa dem ci sàq mi ñuy def dugub yi mu yéeg ci kaw ba sàq mi tuuru sàq ma tuuru baaxul mu bañoon a tuur moo gën ndax sàq mi dugub moo ci dekk ci dugub dafa barkeel dafa am solo dafa baax tuur ko nag gënul tuur ko mooy fil xaqiqati nit su tuuree am sàq wala am dugub ju bari nga tuur ko jàppal ne di nga am jafe-jafe lool ci sa wërsëg euh, loo am du toog sa loxo te lu ñëwit ni muy ñëwee noonu lay demaatee ñu bàyyi ci xel du lu gën nañ ci bàyyi xel xususan ma bayna alqamxi wa durrati kilahuma ala xaddi sawaayi fi lxulmi beneen bi mbokk mi ne dafa gë dafa gis Serigne Sidi Mox Cheikh Sidi Moxtar Mbacké ci gént nee na mu seen ko muy dem mu topp ko dab ko nuyu ko mu ñaanal ko qulna dalika miraaran ru'yatu al awliyaa wa saalihin wal aarifin billah fiihi xayrun wa yusrun wa fatxun wa najaaxun min jami nawaxi gis nitu yàlla yu sell yiw la aaju gu faju la ci zaahir ak ci baatin waxoon nañ ko nañ ci bàyyi xel xusuusan nag rawaat le bi nga xamee ne dem na toog ak moom euh, mu ñaanal ko yiw gënu ko rëy euh, beneen bi nee na dafa gént ba tey euh, borom kooku la maamam doon wax naan xoqal bukaau ala saadati l amwaati tabkil aradi alayhim ka samawaat dinañ ci ñëw léegi ci kanam mbokk mi neen dafa gént oto boo xam ne bi oto bu yàgg la oto bi nag li ko jaaxal mooy dafa màgget lool nee na mu defar ko di ko defar ba mu rafetaat su fekkente ne ku jigéen moo gént gént bi na toppatoo ay waajuram lu ci am solo la su fekkente ne nag ku góor moo gént bu dee ci ku góor dina am soxna soo xam ne soxna su baax la na ko toppatoo soxna su yàlla baaxee euh, ci fànn yu bari nañ ci bàyyi xel mooy assayaara alqadima fi lxulmi innaha fiha xayrun adim xususan inda assayaara allati asbaxat qadima afdal wa ajmal wa ahsan min sayyaaratin jamilatin fil xulmi gis nga oto bu yàgg te màgget te yàqu lool moo gën fuuf ci gént oto bu bees tàq mbokk mi nañ ci bàyyi xel euh, beneen bi ci tegu mbokk mi neen dafa gént euh, mbokk mi neen dafa gént ñu jox ko nen mu toj ko cuuj génn ci euh, baaxul da ngay jëflante ak nit koo xam ne ki ay waxam ak ay jëfam day wuute li mu lay wax ak li muy def amrayni muxtalifayni ala kulli xaal euh, beneen bi ci tegu euh, mbokk mi nee na euh, soxna si neen dafa gis yaramu borom këram ay picc yu bari wala ay taab nekk ci biir yaram yu bari lool taab yu bari picc yu bari ci yaramu nit soo ko gisee jàppal ni benn coow dina ko topp ñaar ay jafe-jafem dina bari ñett lu mu dugg dina bari tolof tolof ñeenteel ba lu mu yaakaar balaa ci jot day metti juróomeel ba euh, li muy sumb genn wàll gi mooy làqal ci ku genn wàll gi day jafe mooy ay picc yi bari ci wiir yaram donte nag danga gis ni mu amee beneen fànn bu mu taxee bu dul boobu la kaana xayran an waaye dañ koy digal mu togg ndabi laax juróom-ñaari ndab mu génne ko sadaqali wajhillaahi l karim te muy def ñaan ci yàlla nag ci loolu mu gis noonu ci yaramam saa yu tëdd mu jàng wa samaai wa taarix juróom-ñaari yoon fa takunu haadihi sura alkarima alsharifa xijaaban mastura anhu dina ko aar dina ko sàmm mbokk mi ñu ñëw ci beneen laaj bi mbokk mi neen dafa gént frère am boo ne bi waaye juróom la gént gis ko ci benn village euh, boo xam ne bi sedd bi dafa metti lool mu ne wax leen diw na ma indil mbàjj parce que fii ma nekk dafa sedd al ummu hiya allati qaalat zalik innaha taxtaaju ila sitaarin li sababi al bardi al qaarisi fi hadihi al qaryati al baidati mbokk mi kon na ci bayi xel xam ni loolu moom message la bu ko waajuram yónnee ci pour mu xam lu muy tekki inda allati raxalat ila jiwaari rabbiha ila jiwaari ci ki nga xam ne kii waajuram dafa génn sa waajur bu génne àdduna surtout sa waajur bu jigéen nga gént mu ne indel ma mbaaji fi ma nekk dafa sedd mooy toppatool ma njaboot gi toppatool ma sama alal toppatool ma li ma bàyyi ginnaaw bu dara yàqu bu gër gi kër gi tas bu nit ñi xaajaloo bu kenn féewaloo na ñëpp am indimaam jokkoo nekk benn euh, tadaamunan kabiran wa tafaahuman kabir fi ma baynahum ngeen jokkoo jàppalante yërëmante li wajhillahi alkarim mooy message bi mu envoyé doomam boobu ne ko indil ma ji fii ma nekk dafa sedd euh, nañ ci bàyyi xel beneen bi message bi gën naa leerati parce que nee na ay ñaari doomam yi dañoo gént ñamit seen maam jox leen ñetti caabi ñaari pour ñoom benn pour seen doom bu góor boobu mooy ki mu wax ni euh, na ko indil mbàjj kon caabi ji mbàjj mi marratayni tadullu ala islaax fi fi usrati euh, haadihi alwalida na toppatoo njaboot gi sàmm leen bàyyi xel alwasaaya anil walidati ndénkaay fi waajuram bàyyi woon mu sàmm leen jàppale ay rakkam dimbali leen taxawu leen bi ahsanil wujuh dafa am solo lool kon message bi ñëw na jóge ci alwalida allati raxalat ila jiwaari rabbiha sa waajur wu jigéen bi génn àdduna mooy mbàjj mi ak caabi yi kon mbokk mi ñu bàyyi xel ci loolu te mu bàyyi xel nag ci ne message bu jara bàyyi xel la bu jara toppatoo ndax euh, ni ma la ko dikkalee dafa leer mm, na ci bàyyi xel euh, beneen bi ñu ñëw ci beneen mbokk mi mbokk mi ne dafa gént mbooloo mu bari ñu du ko topp aljamaatu qulna dhalika miraran aljamaatu rahmatun fi lxulmi mbooloo yërmande la gént ñi lay dàq ngay daw nag moom baaxul nañ ci bàyyi xel taabun wa mashaqatun wa diqun shadidun fi xayaati l insan beneen bi ci tegu mbokk mi ne dafa gént euh, waajuramu góor ñu jàpp ko tëj tëj ko kaso alwalidu ida ulqiya alqabdu alayhi wa jucila fi sijni al assijnu xayrun assijnu fatxun wa yusrun wa najaax wa xayrun azim fi xayaati l insan inda alladi ulqiya alqabd alayhi gis nga ñi jàppale tëj la kaso yiwu bari la yiwu bari la ci waajuram boobu mu gént xéewal bu bari muy waaji ñëw ci moom na ci bàyyi xel inchaa allah fu muy jóge nu muy ñëwee kañ lay ñëw natrukuhu bi yadillahi azza wa jalla dañ koy bàyyi ci loxo rabbu samawati wal ard euh, huwa alfaalu lima yurid ala kulli xaal mbokk yi ñu and ak yéen ci kanam tuuti ubbiwaat téléphone yi Euh, ñëw ak yéen ci seeni laaj incha allahu fas yéene àndaat ak yéen ci 88 euh, am na ko nekk ci ñu jël ziara. sant yàlla alhamdulilah. Mm-hmm. ñu ne. ñett mbir mi bokk daal ñun dañu maa gëntal nga tukki. dañ la gëntal nga tukki. waaw. Mm-hmm. waaw baax na dañ ci ñëw léegi. Eh, shukran wa ma zilna xata al an fi intidarikum bi diqatin wa surur 88 628 14 14 04 05 wala 88 628 65 65 euh, euh, mbokk mi ñu bàyyi ci xel euh, mbokk mi ne dafa gént ñu géntal ko ñaari yoon ba ñetti yoon ne dafay tukki ah nit de boo génte ñi génte la ala kulli xaal tukki ñi géntal la ko ñaari yoon wala kunta mustaiddan li safari satajidu fi hada safar taaban wa suubat adida fi xayaatik gis nga boo bëggee tukki daal ñu gént ne da ngay tukki jàppal ne di nga am xat-xat ci tukki bi waxuñu ne doo tukki nag waaye tukki bi nar a jafe lay doon tukki bu bari xat-xat tukki bu bari jafe-jafe euh, euh, sopp nañu nag nga bàyyi ci xel yow mi nga xam ne yaay bëgg tukki euh, muy lu jar a bàyyi xel mbokk yi dañuy jéggulu lool xat-xataay waxtu wi ndax waxtu wi moo xaw a gàtt ñu ngi ciy jéggulu lool téléspectateurs yi ak téléspectatrices yi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel ci waxtu wi bëgg nag ziyaara mbokk yi nga xam ne dañuy bàyyi xel saa su ne ci waxtu wi ànd ak ñun ànd ak euh, télévision bi incha allahu ñu ngi leen di ziyaara euh, di ziyaara sunu kóllëre yi nga xam ne dañuy bàyyi xel di ziyaara Adja Soxna Ba ñu ngi koy ziyaara di ziyaara Mati Ba Malick Ba Ndiku Fall Adama Ndiaye. Mansour Sarr Mame Lissoune Ndeye Ba Cheikh na Soumaré Bachir ci Mauritania ñu ngi koy ziara Thiané Diagne soxnaam Rose ci France ñu ngi koy ziara di ziara euh, ba tey Mouhamadou Mbaye euh, Alhaji Diakhabi Kémo Diakhabi Mouhamadou Mbaye Medina Mbaye Mujibou Lay commissaire ñu ngi koy ziara ak euh, Modi Ndiaye ñoom Omar Diallo ak soxnaam ñoom ñëpp ñu ngi ak Ibrahim Ndoye alaaji Malick Kayre North Carolina ñu ngi koy ziara ci États-Unis ak soxnaam maxataal ci Italie ñu ngi koy ziara Khoureja Ba ak doomam mami ñoom ñëpp ñu leen di ziara ci Italie Omar Diène ñu ngi koy ziara di ziara sunu kóllëre docteur Pouy ci hopital Dantec Ami Touré ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziara soxnaam Abdourahmane Mbacké ma sëñ Massamba ñu ngi leen di ziara euh, di ziara ba tey Elisabeth Sagna ak monsieur Sagna Bintu Ñang Astu Yoro Mariatu Ngom Adja Astou Gueye Daara Khoudoss Mboro ñoom ñoom ñu ngi leen di ziara Khadim Gueye Norvège ñu ngi koy ziara Madiagne Gueye Italie Awa Diaw Abbas Gadiaga ci itali ñoom ñëpp ci eh, Thiaroye ñu ngi leen di ziara ba tey Fatou Kiné ci Italie ñu ngi koy ziara eh, di ziara Soxna ay Ba ci Bordeaux nekk ci France di ñu bàyyi xel saa ne ci waxtu wi ñu ngi koy ziara bu baax di ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm. yàlla na yàlla tappi xol yi ñu ànd nekk benn jàppalante dimbalante yërëmante li wajhillahi alkarim allahumma allahumma rabbi ya ilahi la yantahi ilayka basaru naadirin fi majdi jabarutika irtafaat ya ilahi an sifati almaxluqin sifatu qudratika ya allah wa ala an zikri zakirina kibriya wa azamatika ya allah fala yantaqis ilahi ma aradta an yazdad wala yazdaadu yaa ilahi ma aradta an yantaqis la ahada ilahi shahidaka xiina fatarta alxalq wala nidda wala didda xadaraka xiina barratu nufus ya ilahi kallati alalsuna an tafsiri sifatika ya ilahi wanxasarati alaqulu an kunhi macrifatik fa kayfa yusaf kunha sifatika ya rab ya man qaala li musa idrib biasaaka albahra fanfalaqa fa kaana kullu firqin ka tawdi alazim salli wa sallim salli wa sallim ala ayni zatika alaliyati bi anwaai kamalatika albahiyati fi xadrati zatika al abadiyati an abdika alqaim bika mink laka ilayk allahuma rabbi ilahi rabbi la tuxayib rajaana wa rajaahum wa rajaa jamii almuslimin allahuma rabbi la tuxayib rajaana wa rajaahum wa rajaa jamii almuslimin allahuma rabbi inni maddatu aydiya ilayka fala taruddu ya ilahi yada albas wa raja minka ya ilahi bi barakati sayidina wa nabiyina wa habibik wa rasulika muhammad ibnu abdullah wa salli alayhi ya ilahi salatan taftah lana biha abwaab alrida waltaysir wa tuxliqu anna biha bab alchar wa taasir wa taqdi lana biha jamia alxawaij wa takuna lana biha ilahi waliyan fi dunia wal axira ya rabbi ya ilahi anta waliyuna anta waliyuna fa nicma almawla wa nicma alnasir inna allaha malaikatu yusalluna ala alnabi ya ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima